الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala di ñaan mu jullil ñu ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mboolemi saxaabaam ak ñu topp njubam ba bés penc Euh, ñu ngi nekk ci téere bi ñuy wax alfiyatu shahaada fi tawxidi wa maarifati llahi taala dil karama muy téere buñ def ci suñ borom subhanahu wa taala euh, nekk ci juróom-ñaareelu fasl bi ci ñaareelu xaajam mu wax ne subhana dil ixsaani wal ikrami yafcalu ma yashaau haasu shububu له المحاسن من الصفات وهو اللطيف والعفو النجيب سميع والقريب والمختار لعبده تقي والمحبوب سميع للمناجي حلك الليل يراه بل يعطيه قد يثيب فالعلم كلها إلى الرحمن ما لفظة إلا بها كتيب صبور عن جفائز العصيان ومن هو الجريء والثلوب mu wax ne mu ngi tudd màggug suñu borom dil ihsaani mi nga xam ne borom rafetal la wal ikraam yi tey teral ay jaam yafalu mooy def ma yashaalu ko sob haa loolu kat su boobu ay xéewalu ay niiru xéewal la yàlla lahul maxaasinu moo am ay rafet rafet min asifaati ci ay melokaan huwa latifu mooy ñeewante jaam bi al afuwu moom mooy jéggal jaamam an najibu moo tedd samiu yàlla mooy dégg lu ñu wax wal qaribu moo jege lool ba gën ñoo jege suñu buumu xol wal muxtaaru moom mooy tànn li abdihi ci jaamam bi nga xam ne yi dafa ragal yàlla wal mahbubu moom la ñëpp sopp moom yàlla samiu day déggalil munaaj yi ci ndéyante yi ñii déyanteeg moom xalakal layli ci lëndamu guddi di toog ba trois heures du matin fay làmpam toog di jaamu boroomam yaraahu mu koy gis bal yu'tihi dana ko jox sax ba mu doyal yu yusibu dana ko fay xam-xam daal yépp daal ci yàlla la fekk baax fal ilmu kulluha xam-xam yépp ila rahmaani ci yàlla la nekk hmm. xamoo ne ma lafzatun amul benn baat bu nit di wax illa biha lu dul nekk na ci baat boobu katiibu ku koy bind kon problème am na hmm. yow suubu guddi yaa ngi wax yaa ngi wuy téléphone yaa ngi woote yaa ngi vidéo yaa ngi lu ne mais maa ngi lay yëgal ne baat bu ne dañ koy bind takaarir yaa ngi fi ne sabuuru yàlla day muñ an jafa yaa isyaani ci bëccëngalu ñi koy moy jaam yi nga xam ne xëyuñu ci lu baax gontuñu ci moom dalee leen di muñal te waman huwal jëri ak koo xam ne dafa ñeme am nañu ñeme yàlla ñeme moy ko wasalubu ak ñiy def bàkkaar dalee ni muñal ba bés xëy na mu xiir leen ci tuub moo tax bul janoog boroom bàkkaar mukk nekk safara nga jëm ëpp naa def ndax danga nga dul xam ci lu muy mujje mm. danga nga dul xam ci lu mu lu muy mujje te yow bés bu mujjee ci lu baax ba demul safara baat boobu du baat boobu ci yow la jëm mm. ndax yow waxoo dëgg mm. xam ngay waxoo dëgg boo nee nit ki safara nga jëm yàlla fekk ci dogalam war na fi dogal na fi mu war a tuub ba baax fi ba dem àjjana yow léegi waxoo dëgg te baat boobu du nëtër liman yutiihu bima qad amara fa huwa raufu daiman habibu yàlla euh, habibu ab soppe la liman yutiihu ci ku ko topp bima qad amara ci li mu digal fa huwa raufu ku koy ñewante la daiman xam nga ki nga xam ne am na mbaax gu toll ni muñal ki koy moy ba mu tuub mu baal ko yóbbu ko àjjana ko xam nga ki koy topp jaratu la wax hmm. wa mal ilahu bi zalaami l abdi hum yàlla bi zalaami di di tooñ al abdi jàmm yàlla nee na yabna aadama inni xaramtu zulma ala nafsi wa jacaltuhu baynakum muharraman fala tazaalamu man yàlla man mi ame pouvoir détenir pouvoir yëpp ak puissance yëpp teewul man maa impose sama bopp justesse ak bañ a tooñ te dara waruma de mais maa ko imposer sama bopp bi ma ko imposer sama bopp ba tey ba pare nag ne leen yéen entre vous bu leen tooñante ndax ku fi tooñ sa morom danaa delloo xaqam ci yow morom mu ne wamal ilaahu déet yàlla de wallaamil abdi di tooñ jaamam hum ñoom nag malheureusement yazlimuuna anfusan ñoom ñooy tooñ seen bopp xaluubu loolu dafay dog nit bari na kuy def ay moy nga foog ne boppam maanaam dafay moy yàlla ñun dañ naan moy yàlla fekk yàlla kenn mënu koo moy nit ku nekk sa bopp ngay def nit mënul moy yàlla kenn mënu koo moy kenn ku ne sa bopp ngay tooñ hmm. walakin naas anfusahum yazlimuun rabbi yee sama borom huwal adlu moom mooy ku juste ki anil mazalimi ci tooñaate yi yurudduhu moo tax boo indee ay tooñ diw tooñ na diw diw tooñ na diw diw tooñ na diw yàlla danaan non man tooñu leen ma comme seen bopp ngeen doon tooñante kay léegi delloo leen àq yi rek kenn ku ne ñu jël àq delloo kenn ku ne jël àq delloo finalement euh, boo watul du dese dara mm-hmm. nit bu dëkkoon ci xalwa di jaamu boromam te làmmeñam du ci wax lu baax boo wattuwul safara la jëm parce que moom mu dëgg la mu ngi jaamu yàlla mais mu ngi tooñ te tooñ yooyu bu tolul ni yiwam ba wattul problème day am ndax yàlla nee na dafa juste kenn du dugg àjjana lu dul axa yi nga amel ñëpp nga fay ko yonent bi nag nettali ci lu triste mooy jaamukatu yàlla bu màgg ndeysaan bu ñëw àjjana ak daraj bu ñëw yowmal qiyaamati ak darajaam yàgg naa jaamu yàlla def na lu baax lu ne waaye li mu yar ci àq itam moo ëpp jaamu bi après ñu récupérer àq yëpp finalement du desee ci dara mm-hmm. moog ñi jaamuwul woon yàlla ñooy bokk benn logement ci safara loolu triste na trop yeneen ci bi ak na atadruuna manil muflis ndax xam ngeen ko perte ci àdduna ndax xam ngeen ko perte dëgg dëgg dëgg dëgg ñu nekk ku perte de mooy ku doon def commerce après dem ba am ay bor après banque bi topp ko récupérer euh, daanaka ay biens am yëpp kooku mooy muflis dañ koo saisir ñu nekk al muflisu saxaaba ñoo ko fii naa man laa mataa indahu wala dirham ñun de kuñ saisir ci ñun mooy koo xam ne amul alal amul dara euh, mu ne leen kooku dañ ko saisir waaye bu góor góorgóorloo liggéeyaat mën na amaat teranga jooju mu amoon ndax àdduna jeexagul ci moom mais al muflisu xaqan man ata yawma alqiyamati bi salaatin wa sawmin wa zakatin wa hajjin mooy nit koo xam ne digg yàlla li ko yàlla santoon yëpp ci jaamu yàlla def na ko julli na woor na dem na aji màkk ay yoon aj na euh, euh, joxe na azaka wax na lu baax mais malheureusement waqat shatama haza masoon naa saaga kii wa safaka dama haza jamoon na kële waa axada maala haza masoon na sàcc alalu kii maanaam andi na fa ay àq yu bari masoon na tooñ kii mas na jëw kii saaga na kële jël na suufu kële nax na kële lu ne def na ko nag mais wax dëgg yàlla li ko yàlla waxoon à la ci jaamu ko def na ko bu ko defee yeneen bi nee na bu waajooju bu ñëwee bëgg ñu bëgg ko régler ndax wax dëgg yàlla yiwam rek yóbbu na ko àjjana ba war a yóbbu sax ñeneen mais bi ñu régler ba ne moom àjjana la war a dem ñu jekki-jekki ay groupe ñëw ne ah yàlla yàlla yàlla kii de daf ñu ameloon ay ax yàlla ne man de dama juste kon ñëw leen ñu teg leen kenn ku nekk ñu laaj waa ji ndax ameel ngi kii ax mu ne ay la yéwén effectivement bu ko bëggee weddi ñu indi vidéo yi wan moo xam ne effectivement nii la demee ñu ne kon nag bañ ñu nga dem àjjana mais fayal àq yi ndax boo duggee àjjana ak àq yi damay ame àq te man yàlla du dama juste euh, kii nee na yaa yaa ko rayoon ñu jël yool bu toll nii euh, li mu amee ndax yawmal qiyaamati moo ne amu fa àq yëpp ci yiw lañ koy faye ñu jël euh, lu toll noonu ci ay julleem fay ko waaji kooku moom ca lay jaare sax foofu jaare foofu ca pot ba rek dugg àjjana moom kañ fay kii ne man yaa ma saaga woon yaa ma xasoon yaa ma yóbbu woon internet wax ci man lu bon ñu jëlaat yu wutal noonu fay ko kooku jaare fa dem àjjana euh, kii ne yow yaa jëloon sama alal ñu jëlaat yi wutal noonu fay ko moom mu ngi yóbbu nit ñi àjjana rek wax dëgg yàlla te moo ko liggéeyoon hmm. hatta isa faniyat xasanaatu yonent bi ne ñuy fay ba ay ay yiwam jeex takk nag takk wa baqiyat al euh, ahlul xuquq léegi te ak ay jeexagul ndax mbooloo maa ngi taxaw am na ñoo xam ne amaguma amaguma fayaguma te waa ji li mu waroon faye banque bi jeex na yàlla ne comme nag banque bi jeex na léegi yow lenn ngeen ko mën a faye mooy jël leen seeni bàkkaar yéen di ko jox ah yow yaa ma defoon lii ñu ne ñu peese li mu tollool ci ay bakaar sotti waa ji di ko sotti di ko sotti ba àq yëpp jeex ñooñu ndax ñoom itam ku ci say bàkkaar jeex xam nga dangay ngay jaare foofu dem àjjana moom mii nag waroon a dem àjjana ñu rek woon ko ba léppam jeex mu war a dem àjjana yàlla ne ko léegi nakamu àq yi di jeex na yiw yiw yiw moo waroon a yóbbu nit àjjana te yow jeexal nga bàkkaar moo war a yóbbu nit safara moom nga amee kon nag malaaka yi yóbbul leen ma ko safara yonent bi nee na perdition mooy loolu ndax wax dëgg yàlla jaamu na waaw loolu ah amel nit ñi ah jar na ko jaru ko jaamu yàlla kaar coono bu nii nga liggéeyal ko nit ñi pare ñu fay ñeneen ñu dugg ci àjjana à ta place jullit war na ko wot moo tax mu ne wamal ilaahu déet yàlla bi dalaamil abdi di tooñ jaam hum ñoom nag yazlimuuna ñooy toon tooñ anfusan seen bopp xalluubu ñooy wor seen bopp ndax rabbi rabbi huwa al adlu sama borom bi dafa mandu an mazalimi euh, anil mazalimi ci tooñ tooñ yi loo indi ci ay ax yarudduhu daf koy delloo yow man liqaa bés penc bi mm. kasiibu moom mi nga xam ne moo fag woon yaxkumu baad al mujrimina baadahum an il xuquqi yugfar azunubu yaxkumu moom mooy atte moom borom bi baad al mudnibina lenn ci tooñkat yi baadahum ñi ci de maanaam moom képp ku tooñ sa morom moom moo koy géréel boppam atteel ko boppam du wax ne sama yoon nekku ci anil xuquqi ci seen àq yi donte nag yuxfaru dina jéggal ak dunubu bàkkaar kon ñaari xaq moo am sa digganteeg sa borom ak sa digganteeg sa morom gis nga àq yi nga xam ne sa digganteeg sa borom la yooyu bàkkaar la tudd yàlla nee na boo nee astaghfirullah rek ma baal la ko ndax man xaj naa ci ci loolu mais àq yi nga xam ne sa digganteeg sa morom la mooy ki nga saaga woon ki nga jël alalam ki nga xasoon ki nga dóoroon yooyu nag yàlla ne na bu ma ko jéggalee jéggale lu ma moomul jéggale lu ma moomul yow yaay wattu moo tax xas jullit rek ëllëg li mu mën a coûter maanaam bu ñu ko peesee mën na tollook julli gi nga julli weeru yàlla benn xas boo xas ah diw diw benn xas boobu rek mën na tollook yiw weeru li nga julli weer xanaa sawar nag yeggul foofu te dafa ñu bëgg loolu natt bu bon la yàlla ñu ci yàlla musal qaala al ali maa yuminuuna aktaru illa wa yushrikuuna za ajibu yàlla nee na malheureusement def naa lu ne pour dimbali nit mais nit moo bëgg a bokkaale yàlla wax na dëgg nag wax na dëgg kaar ndax nit même bu amee lu baax sax war koo terloo dina ne xamoon naa ne dinaa ko am ndax diw kaw mu tudd kenn te yow ka ngay tudd deful jombul dundul sax mais yàlla nee na nit ci boppam naturellement moo bëgg bokkaale yàlla wa ma yuminu billah illa wahum mushrikun yàlla moo ko wax ci alquran ma tax mu ne xaalal ali yàlla wax na ne maa yuminu nit ñi duñ gëm aksaru lu ci ëpp illa wa mushrikun lu ñu bokkaale yàlla ku ci am teranga sax ut kooko moomale za loolu ajibu yémi na ama alladi yuxlisu lillahi al ali yura ka majnunin lahu shuubu léegi nag boo ne man daal xam naa ne lii nekkate ndekete man maa juumoon léegi nag dama bëgg a sellal yàlla eh, ci jaamu gi léegi sellal sama diine ñu jigéen ñi di wax dama bëgg sellal léegi ci saa si rek mutation boobu ngay am muy changement boobu ne da nga bëgg a sellal yow sa famille liñ lay njëkk a jàppe mooy danga nga dof léegi ah moom de xanaa dafa bi ko feeñu léegi ah moom de man xel mi léegi dafa rëcc de moo tax mu ne amal lazi daal ki nga xam ne yuxlisu dafa bëgg a sellal léegi boppam lillahi al ali ci yàlla jox yàlla boppam yuraalahu shuubu maanaam peuple bi dañ koy xool kamaj nuunin comme ko dof léegi mhm. jullit moom dañ ko yàgg jiñ na dafa xaw a dof amma alladi yushriku bil bawaaxi fa huwa judayluha daawul maksuubu amma alladi yushriku ndaal ki nga xam ne dafa am fit di bokkaale bil bawaaxi carrément naan waaw fii diwa fi ne ku dul yàlla di ko wax officiellement di wax yow sa ngandaay sa jàmbaar dangay commencé di am ay fans fa huwa kooku juzayluha moom la ñuy def waaja maanaam kuy bokkaale yàlla fii ci àdduna da ngay am buzz am mbooloo am kuy sellal yàlla dof lañ lay jàpp waaye loolu nag mooy coobare yàlla looloo itam moo mas a am moo mas a am maanaam yàlla moom ku koy woo ci wéetay wéetal daanaka yow mi koy woote sax sa sa sa adduna moom mën naa bañ a neex parce que teranga yu bari da lay jéggi daaw na ngeen bàyyi mag suubu loolu ñuy soxa faggu minu duno bi ci ay bàkkaar aw ki u na ngeen takk wika a mbuus mi fil xal bi ci xol xol dafa doon mbuus moo xam ne dafa am kaw am suuf léegi boo bëggee li ngay def ci xol bi toog fa dangay takk suuf gi boo takkee suuf gi ci lu dul yàlla ubbi nag kaw gi muy yàlla kese yàlla fees fa del nga bàyyi ko sa waaye boo bëggee mbuus mi fu ne nga ubbi ko utal ko bunta ku ne nga ne du kenn du moom ku ne nga ne kenn du moom finalement bu yàggee yow yaa dul doon kenn yow moo tax mu ne aw ki u na ngeen takk alwika mbuus mi fi qalbi lillahi ci yàlla war raqibu ndax mooy fuglu yàlla nee na li ngeen nekkee yëg naa ko seen dara échappé li ngay wax ci kaw ne danga koy wéetal ak li ngay def ci suuf yàlla nee na dara échappé wu ci musiba am na qad yalamu llahu qad yalamu llahu ma antum alayhi wa yawma yurjauna ilayhi yàlla nee na qad yalamu ilahu qad qad yalamu llahu bima antum alayhi wa yawma yub'asuuna fastajibu jinaas lu aaya la yàlla nee na xam naa li ngeen nekkee seen xëy dara umpuma ci seeni gonte dara umpuma ci li ngeen di li ngeen di pexe ci suuf ak li ngeen di wax te gëmu leen ko yàlla nee na maa ngi ne ci jomm ma ne wéetal leen ma mbaa ngeen daje ëllëg ak leneen wa yawma suuna xam naa itam bés bu ngeen di dekki kenn ku nekk ban pour pourcentage lay dekkee ci gëm ma parce que yiw kon wuy leen ko dara ump ma léeg-léeg sax kilifa car ñu ne la ah xel ci moom de moom de sax am na yu xam na la waaye yow nga fexe def ay pexe def ay pexe laxatoo laxatu ba échappé kooku yàlla nag dara échappé ko ma ne na ngeen wuyu yàlla yawmal qiyaamati fala misaanu yawmal qiyaamati amul foofu benn balance sama illa taqwa lu ragal yàlla fala turi bu leen sikk saak fii léeg-léeg nga bëgg benn post ñu ne la nga am diplôme tel nga fexe fexe ba créer diplôme bi am ko mbaa nga sàcc euh, cachet wu jàmbur fexe ba cacheté ko ne diw la euh, relever des des relever des des points danay am des notes relevé des notes nga fexe fexe ba créer ay notes yow ne man maa def lii pour ñu may la taskiya pour nga dugg ci benn université xam nga lool pexe fexe di dafa yóbbu nit yamal qiyaamati ne foofu amu fa balance ba dafa dëgër dëgër dëgër ba mënoo am leneen loo fa def mu daanu lu dul taqwallah kam laa bi si noxma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bari na ku sol ay yëri Oh, bari na ku sol yére yawmal qiyaamati day rafle yi nga gis nit sol yére boo xam ne tissu bi nangami junni lay jar mbaxana mu noonu dàll yi noonu kaar bu demee yawmal qiyaamati caleçon sax du ko sol yonent bi ko wax de kam laabisin wa huwa aarin yawmal qiyaamati moo tax mu woy xadis boobu ne kam laabisin norma bari na ku sol ay xéewal minal malaabis ci ay euh, yére yére yu nooy yakunu dina nekk aar di rafle yawmuhu bés boobu xabibu yow soppe bi waa jooju day mujj a rafle nga romb ko yow ma xam waa kii diw muy sëggal bopp bi naan effectivement man la bari na kuy toog ci mbooloo ñu koy jegeñal ci kanam naan na kilifa yu ñëw ci kanam sa yowmal qiyaamati ca gannaaw lay toog bari na koo xam ne day ñëw ci mbooloo doy dal ko tax ñu teg ca gannaaw fekk yowmal qiyaamati ca pëjëm ba lay toog kam naa yin bari na kuy ku sori la dal unaas ci nit ñi yow ma woo bés pénc xaa dina jege saidan di texe lool di jege yàlla lool yàlla hu maa ko ñee mawhubu ci ku ñuy may teg mooy kan wa huwa salimul qalbi mooy ku sellal xolam li tawxiid yi ci wéetal boroom yuxlisu muy sellal boroom xat sullima qad sallamat qutu qulubu ndax sellal na xolam kon message bi mooy yaa qawmi yéen sama nit fattaqu ragal leen yàlla ajibu wuyu leen ndax ku ne dégg na fi nag loola war a mën a loo loola war a mën a jëriñ isma'u na ngeen dégg nasihatal xibbi maanaam laa biiru soppe bii doon wax ak yéen lisa ndax loolu maktubu dañ koo bind ad diinu nasiha hmm. zinu bi amalikum qubaylal yawmi na ngeen peese seeni jëf lu jëkk bés penc sidna aboubacar siddiq moo kaan wax ci xutbam ne xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu wa zinu amalakum qabla an tuuzanu waalamu anna la xayra bi xayrin baadahu char wala charra bi charrin baadahu alxayr baadahu alxayr baadahu aljanna Euh, sidna Aboubacar daan wax ne na ngeen régler seen bopp lu jëkk ñu leen di régler ëllëg yawmal qiyaama ci wala ba ku dugg ci bàmmeel dinañ la régler jour yi nga am ci adduna bi yëpp nangami junniy bés par jour lañ lay régler par waxtu par minute balañ laa régler régleel sa bopp ndax njariñ li mooy boo amee totalité bi di nga xam ndax baax nga nga continuer ci wala ndax bon nga nga jéem a soppiku wa zinu amalakum dee leen peese seen jëf qabla an tuuzanu lu lu jëkk ñu leen koy peesal ci misaanu bés pénc ndax fii boo leen ko peesee ba xam kilo yi di ngeen xam ni ngeen ci war a yokk ci mbaax euh, mu ne waalamu na ngeen xam ne anna laa xayra bi xayrin yiw manta am mukk baadahu naar te borom dem safara lu teraanga bari bari bari boo mujjee safara yàlla ne wa bisal masir wala charra bi charrin Euh, musiba mënta méttee métti baadawul janna ba nga dem àjjana muy méttee ci maanaam loo ñàkk-ñàkk loo sonn sonn boo demee àjjana jeex na xam nga lool ak jàjj la moo tax mu zinu bi amalikum nangeen ngeen peese seen i jëf xubaylal yow bis jëkk bés penc tuusanu bu ko defee ñu peesel leen ndax moom foofu kat lan naqiiru du tol ni xottu tàndarmu laa yax yi du perte foofu du fa échappé moom yàlla yaalamu ma axfa kaw kawni fii naa jamia rusulihi katibu yàlla yaalamu xam na ma axfa li gën a nëbb maanaam li gën a intime ba nga xam ni da koy nëbb jabaram di ko nëbb yaayam yàlla ne na maa ngi ci ne jomm en direct la nekk ci man mu mu ne yaalamu xam na kaw kawni borom mbindeef yi ma axfa li nëbb ci fii naa ci ñun te yemul ci xam gi mais dafa yebalaat ay seede ay émissaires yoo xam ne ay malaaka la ne leen dem leen ànd ak waa ji ah mm-hmm. fu mu gontu fu mu fanaan na ngeen bind li mu wax li mu jëf musiba am na ki fooy échappé moom xam-xamam rek mënoo ko woon échappé booleeg mu boolewaat ñoo ñoo xam ne dara du leen ump ci ñun wa naa fii wa fii naa jëmee rusulihi katibu ñu ngi bind lépp loo xam ne nii ñu ngi koy wax mbaa ñu di ko def mm-hmm. walaysa shay'un asqalu fi l wazni illa shahadata fati xasibu yow nag jaam bi kon nanga xam ne yawmal qiyaamati bu yàllay peese jëf yi lu fa gën a diis yonent bi nee na lu fa gën a diis kalimatu laa ilaha illa allah amu fa jàngoon nañ ko weesu na ci gannaaw euh, nit dina bari lool ay bakkaar mais kalimatu laa ilaha illa ñu def ko ci benn papier buñ ko ci tegee mu wat lépp waaye kalimatu laa ilaha illa allah boo xam ne gëm na li mu wax sellal na ko te jëfe na ko mm-hmm. moo tax mu ne walaysa shay'un amul dara asqalu lu gën a diis fil wazni ci poids illa shahadata euh, lu seede yàlla fatiyi na nga xam ne loolu xasibu lu nëtax la ndax fiiha nekk na ci la ilaha illa allah boobu min as-saadati ci xeetu bonheur tub naa moom lay tabax maanaam la ilaha illa allah dafa mel ni moo lay tabaxal sa benn sa logement àjjana ajal wa hiya même baat bi almaali mooy mooy doon maanaam Euh, euh, étage yi nga xam ne xurfatan ci ay étage la majzubu yow miñ xëcc jëm ci yàlla na nga xam ne laa ilaha illallah bii ngay wax tey di ko nodde di ko liqaame ëllëg pourtant moom moo lay tabaxal say gratte waaye itam ñàkk ka gëm moom mooy tabaxal nit ay kalam fële ca safara moo tax mu ne man yakfurul imaana yaxda xazahu fi daari dunyan samma fa naxibu man yakfur képp ku weddi al imaana ngëm gii muy laa ilaha illa allah di nga am xaddahu euh, cëram fi daari duniyan ci àdduna sàmma fële nag ëllëg sa ndaxi bu ay duma la maanaam jullit tey bu ñu la waxee ne képp ku weddi yàlla day alku ëllëg euh, daf lay def kaa ndax yow booy xool ci bët bu woyof dangay gis ne àdduna ñi fi ne ñëpp yor fi saranga ji mooy ñi weddi yow lii nga wax maanaam ñi weddi laa ilaha illallah ñoom fi mu boo bëggoon liggéey ñoom ñoo lay embauché hmm. boo bëggee dara ñoo lay yokkal te ñoom yow li nga wax ne ku ko gëm dangay tedd ñoom loolu lañ weddi tedd loolu tax jullit yi xam naa ne jàngal leen tawxid baax na waaye bii daal moo ëppoon solo mooy laa ilaha illallah nag boo ko xësee wax rek leçon bu explicite la na ci nit ji bàyyi xel laa ilaha illallah dafa mel ni boo ko xësee wax danga nga def choix mooy danga wax yàlla ne ko loo ma war a fay rek dencal ma ba ëllëg kon kay yow fii boo fi amee sax tàndarma bari na suwa nga def yow mooy yàlla dégg naa am nga ay teranga yu bari yooy jox say nit léegi man def naa choix loo ma war a jox bàyyi ko ba ëllëg léegi kon jullit même ndox mu muy naan fii sax ak lal bi muy tëdd ëpp na mm-hmm. ventilo bi ngay ëpp sax ëpp na ndax la kay xaar moo tax léegi képp kuy weddi itam laa ilaha illallah yow danga def sa choix da ne yàlla ëllëg dafa yàgg jox ma ko fii léegi kon dans leen normes bu fekkoon noonu la demee dëgg-dëgg jullit waru woon am fii dara dara dara waru ko fi am yéefar warul woon ñàkk dara même kër yi jullit yi dëkk sax ñoom ñoo ñoo ko ñoo ko waroon a ñoom moom ndax kii def na choix am ba pare mais xoolee yàlla ci mbaaxam jullit mën naa dund fii ci àdduna ci teraanga ju modeste ba dee te du sax yëg coonam mais bu demee dina xam ne wax digg yàlla la mu la mu fekk foofu ak la mu bàyyi sore bu dee yéefar nag ak loo ci mën a gis ak teraanga juñ mën a am mu ngi yem ci dee te wax dëgg yàlla ñoom damay wax ne ñoom c'est ce sont eux les grands perdants parce que liñ fi jot a am fii yàggul maximum doo fi dund ak quatre-vingts ans léegi ñoom ñoo ñooñu nga xam dañu weddi yàlla quatre-vingts ans boo ko fi amee léeg-léeg trente ans yu njëkk yi dara du dox mm-hmm. yi ci des mu dox dix ans yu mujjee da kay koy feebar hôpital yi ngay jaabante mais nga dem fekk nag mbugal moo xam ne ay milliards at la jëm xam nga loolu metti na mm-hmm. jullit bi dëgg la moom quelques décennies dina fi sonn waaye léeg-léeg mu xaw a tuuti mu nekk di def dund góorgóorlu ba dee bu deewee nanga mi milliards at muy tedd choix boobu bu ko ñu bari xamoon kon étudiant bi jàng ba am ay diplôme dem def demande d'emploi wër a wër a wër amul liggéey mu naan posante dina xam ne dafa juum ndax euh, xam na ne moom choix bi mu def ëllëg la mbiram di ñëw moo tax mu ne laa taajabu bu leen yéemu lima lahum ci liñ am min at yi ci ay xéewal euh, ñi weddi yàlla bu leen yéemu yéen jullit yi li ñu amee ci ay teranga léeg-léeg ngay dégg naan waaw ñun ah ñun africains ñu duñu dara amuñu dara gis nga occidentaux yi li ñu am nàngam nàngam déedéet mataahu teranga jooju xalilun dafa néew de yaa mag suubu yow mi fàggu mbaax ndax mu ngi yem seen buntu bàmmeel am na gu am na góor gu siiw gu fi nekkoon ji wax Hitler kilif adduna bi lu ne mu def ko Hitler anamu yàgg na dee na bu yàgg laa taajaboo bu leen yéemu taqallubaatin lahumu mobilité yi am alal di ci dëkk yi da ngay gis koo xam ne jet privé lay am di ci doxantu ay soxlaam nga naan xoolal ñi fu leen neex la ñuy dem aéroport bu leen neex la ñuy atterrir maa ngi lay yëgal ne teraanga jooju nga teg bët dina yaxtawu dina dinañu am ëllëg rusu bu appartement yawmal qiyamati wa hadi nga dem waaw teraanga ji ñu am nag ma ne lii ujjila dañ leen ko anticiper rek bi tayyibaatihim ci xéewal yi ñu waroon a am àjjana mm-hmm. lañ waroon am àjjana la ñu miniaturiser tuutil kaa tuuti la tuutil ba mu doon benn une cinquantaine d'années ñu jox leen ko fii ñu xéewloo ko fa ziida ñu gën a yokkuwaat sax ba fa zunu ay bàkkaar mm-hmm. parce que teraanga jooju noonu mm-hmm. moo leen gën a may possibilité ñu gën a mooy yàlla te mooy yooyu ay duma lay jur li nga ciy jànge mooy leen justesse su yàlla yàlla nee na comme nar laa leen duma fële danaa fexe ba duma leen duma leen wàññil seen teraanga fii léegi nag jullit bi xamul lii day foog ne ñii mbaax gu ñu baax moo tax ñu jox leen teraanga ji fekk duma giñ leen nar duma ëllëg te yàlla nee na duma duma fii nit duma wàcc fële duma teral fii nit teral ak fële yow kay defal sa choix mais yàlla danaa muñ xam naa ne fii yàggul fii yàggul kat mooy mën na doon suba comme yow xamoo kaña la muñal lii kaar te xam ne teraanga jële du jeex moo tax mu ne laa yazlimu allahu lahum fa mut mutaatahum fi daari fal xutub yàlla ñooñu liñ koy weddi weddi liñ koy bañ bañ la laa yazlimu allahu yàlla du tooñ lahum ñeel leen fa yanqusu bay wàññi mutaatum seen teraanga ji nekk fii ci àdduna fi daare fal xutubu ay problème rek la léeg nga dégg kuy waaraate ci lislaam mel ni ñi mooy yàlla li ñuy mooy warul woon am fekk njuumte la parce que ñoo ñu di mooy yàlla fañ nar a mujjee ëllëg ñoom ñoo ko war a liggéey te foofu mooy yàlla moo fa yóbbu nit moo tax kon bàyyi leen rek ñu mooy te yow nga jaamu wal muslimu jullit dëgg-dëgg aabidu kiy jaamu yàlla yaxwi dafa war a làq xazahu cëram yowmal qiyaamati kaamilan muy mat rakubu muy war fil xurufaati ci ay étage aminina muy wóolu saalimin di mucc laa saxaba fiiha nga xam ne amul coow wala laxubu amul coow ba tey amul suspicion waaw yow ngi def siwaab bi bañ war la fay loolu war ngaa mën a muñ fii nag ñàkk a reer ak ñàkk a añ ak ñàkk a kafe goo ndax boo ko xoolee ci pour pourcentage balay xaar ëllëg dama koy nirale ci waajoo xam ne ni kaar am na ci banque bi nangami centaine de milliards de dollars mu leer ka ne moo ko moom léegi mu doon retiré ji benn mbir ñu nekk ah il fallait que nga xaar fii ak vingt quatre heures parce que banque bi dafa am ay perturbation vingt quatre heures yooyu desewul loolu mille francs mille francs boobu waru ko mën a consommer fii ak vingt quatre heures xaar loolu waru ko mën a muñ waaye bu fa nekkee nag di mer saaga xam nga xamatul li xew ndax lële moo ko moom du yàgg ba keneen consommer ko ku dul moom mhm. lii ñu ne nag nag consommer vingt quatre heures yi mille francs bii le temps que ñu pare ci suñu liggéey jox la li nga moom loolu war na war na koo mën a muñ mhm. koo koy jullit jullit nangami milliards yi di milliards ak nangami château la amee moo ko moom keneen nag du ko jariñoo ku dul moom ñu ne léegi mille francs yi nga jot a yor moom ngay consommer rek fii ak ngay dugg a bàmmeel nga muñ nag nga muñal ñu vraiment yéenew ñu la ko sax waaye muñal rek soo paree nag nga jot ci leen nga ne dee tey laa ciy jot déedéet mënul nekk moo tax mu ne laa tahriman ilahana zanni ami am ami yàlla yow yàlla buñ ñu xaj nag yow yàlla boroom xéewal yi bi ni amit daara nit ñi xéewalu àdduna maa bu loo xam ne dina tey ci suñu bakken bii xulubu xol yi nga xam ne tasmaul azan dina neex ci nopp yi min sawtin lazizin ci baat bu neex yaa ali dabibu nga xam ne fa tabarakallahu dafay dukkat ba ñëw ci ñun maanaam mu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla nañu yàlla may muñ koo xam ne dinañ toog ba teraanga jooju ñu ñëw ñëw ñu jariñoo ko ndax àjjana kat yonent bi nee na neex na neex goo xam ne la nekk ci xéwal bët mus koo gis ci teranga euh, nit mus koo ñam gute ci neexaay lafay nekk ci ay son yu neex nopp mus koo dégg moo tax mu ne taral uyunu bët yi dinañ gis xasanaatin yu rafet yoo xam ne ni maa yura maseesula gis bi mislihin na ci yooyu lil waduudi ci aji sopp ji yàlla ubu nañ dellu ci moom mm-hmm. Euh, maam dafa bëgg a wax ne àjjana daanaka dafa mel ni yëpp dañ koo paqueté ndax yàlla day bañ nga dugg sa kër ci biir àjjana yëg ne am na ku fi jiitu ndax wax dëgg yàlla kër boo xam ne yow yaa ko yaa ko inauguré ko fekk yëpp nekk ci mbuus dafay gën a neex boo xam ne gis nga fa ay ay tànk yu fa doon dox ak euh, ay lal yu froissé ak yu mel noonu moo tax yàlla dafa tëj lépp moo tax mësee su la gis lu ne lu rafetee noonu dañ koo tëj yëpp narda bu ko defee ñuy kontaan bu ñu duggee foofu nu shaahidu ñu fay xool ñuy gis bi wajillaay jëmm yàlla yarda bi naa moom it muy bég ci ñoom falay sa sàmm xam nga foofu radu mer amu fa de mer ak yàq sa kanam mm-hmm. ak doon euh, loolu amul foofu mm-hmm. yow ñu baax ñi nga daan dégg ñëpp da nga leen gis foofu yonent yàlla yusuf nii nga koy gisee yonent yàlla yaquba nii nga koy gisee nit yàlla yu baax yi nga bëggoon soppaleen nii nga leen di gisee ñi nga defoon say sëriñ te fekku leen fekkoo leen fi nii nga leen gisee nu shaahidul aqtaafa noonu la ñuy gisee xutb yi dal euh, irsaali ak ñi ñu yónni woon wa sax bi ak saxaaba yi ñi ngay gisee abdullahi ibnu euh, euh, abdullahi ibnu abdullahi ibnu ubay ñi ngay gisee abdullahi ibnu jahsh ñi ngay gisee aboubacar siddiq ñi ngay gisee muaz ibnu jabal ñi ngay gisee mag ñooñ ñëpp wal ixwaana ak mbokkum julit yi nga xam ne déggoo leen fi woon déggoon nga leen yaa xabibu yow soppi xam nga lii mooy taxe bonheur lii la moo mu ne tilka lii mooy bonheur huna foofu la ne samal xayaat foofu la foofu la nekk mm-hmm. waaye fii ay souci rek la ay problème wala te fi ci àdduna de wabal ay stress rek problème tilkal majaadatu loolu mooy teranga ma al wilaya loolu mooy alliance ak yàlla ma al gana maganimi fa la nekk fa tilka loolu azubu neex na torop hmm. torop mais du lii fa inna rabbi sama boroom fi siraatin mustaqim mu ngi nekk ci yoon wu jub dafa juste yaxkumu moo tax dafay atte bil adli ci njub wal xasibu moom moo doy sëkk kon ñii nga gis ñu am teraanga ba pare weddi kalimatu laa ilaha illa allah ndekete njubak njubak yàlla la da leen bañ a tooñ doonte weddi nañ ko hmm. qul unzuru fi malakuti xaybihi wa mulkihi umuruhu musibu xool leen yàlla ndeke du jum foo dem rek organise na ko nose na ko noo xam ne mbiram yëpp dafay jub balib suru ma fi sama min xikmatin xool leen li ne ci asamaan ak suuf dangay ngay xool ni kullun ñoom ñëpp yaqirru ñu ngi saxal xaamidan di sant yàlla mujibu di ko wuyu kon wax dëgg yàlla yàlla jàmbaar la yu yaaj naan nganda yàlla rek mooy nganda subhanahu dul ñu ngi tudde borom bi borom màgg gi wal kabiru mooy ku màgg gi euh, ak teranga ji wax wal azimu yusmaru moom mooy meññal alxububu pepp yi nga xam ne nii moom lañuy ñuy jariño yubdi mooy feeñal mbiram yu mag yi li rus yi ci yonente mi yabquuna ba ñoom ak li ñuy jege-jege yàlla xaw fan ci ragal yàlla minhu qad yahibu dañuy tiit yonent yi li ñuy jege jege yàlla yàlla dina leen feeñu ci ay tëjaliyaat yoo xam ne dañuy lox ñoom ndax yawmal qiyaamati wa xadis wax na ne yonent yëpp dañuy tiit dale ci maam Adama ba ci instant kuñ kuñ dem ci moom nekk waxal sa borom mu àtt nit ñi ñu noppalu mu ne dem leen ci diw dem leen ci diw ba ci yonent yàlla Muhammad mooy jub taxaw ne ana laha kon tëjalli boobu yàlla feeñu xaritam yooyu ba ñu tiit ñoom seen bopp lañ tal te pourtant ñu baax lañu mais feeñuwaayu yàlla ci ñoom moo leen tiital noonu mais yàlla nag day tiital nit ñi jullit yi tiital leen bañ tiit mu soog leen a teral xam naa li mu nekk ay contraire sax ndax dañu wax nag lekk balaa neex nga xiif xam nga ki tiita tiit ba foog ne désespéré na ñu teral ko teral ba loolu dafay neex yooyu nag la yàlla di feeñoo ay nitam yubdi idaama mulkihi fi milkihi lil mala'il a'la fala muribu yàlla mooy feeñal màggug mbiram ci nguuram gi ci malawul a'la fala muribu yàlla spectacle bi mu war a organiser rek pour yawmal qiyaamati loo baax baax da ngay tiit gis nga asamaan sii la tiim nangami millions yi at mu ne fi day jekki-jekki rek xotti ko ne malaaka yi wàcc leen ñu mel ni ay para yuy wàcc nañ piw piw nangami milliards yi malaaka di wàcc sa kanam ngay lox <laughs> spectacle boobu la lay wan pour rek tabarakallah nga xam kàttanam ndax léeg-léeg euh, fête de l'année da gis euh, fête de la nation nga gis euh, kilifa gi toog ay ministre am toog ñiy doxal armée bi di romb di romb di di di satisfaire waa dëkk bi mais di tiital noonu waa dëkk ba yàlla noonu lay def yowmal qiyaamati bu bu indee ay malaakaam rek yow daanaka doo bëggati dara dara dara ndax tiitaange te fekk na ci teral la rek la jëm ku baax la yubdi jisaama xikmatin fi naa li kulli yawmin sha'nuhu al-ajibu yubdi mu ngi feeñal fu mu toll jisaama xikmatin magbuk ay kéemaan fi yawmina ci bés suñu bés bii di àdduna li kulli yawmin bés bu ne sha'nuhu mbiram daal ajibu yéeme na mais ñun ñoo ko dul gis yubdi izaama sha'ni min yi li kay yatiihuuna bi shawqin tuubu yàlla nii muy wane ay miracle am mais bu dee ay nitam yi yi koy tudd ñoom dafay nëbboog ñoom di leen wan ci ay xeetu mbaaxam loo xam ne dañuy gëlëm fu ñu toll yubdi izaama sha'ni mu ngi wan kéemaanam yu màgg yi min ahbaab yi ci ay soppeem li koy yëtee xuuna ngir ñu gën a gëlëm bi shawqin ci bëgg gën a bëgg yàlla rek tuubu kon nañ delluwaat ci yàlla yàlla moomu euh, résultat yi nga xam ne moom la balaaka yi bind yëpp ci ay ay ay document document yëpp ci loxoom la ne ndax malaaka bu ñëw douze heures de temps lay def ak jàmm bi dem yóbbaale document am loolu xeet la ci mbaaxu yàlla parce que malaaka yi bind document wu nit ki ñoom duñu fekkan maanaam ñoom xamantewuñu nit buñ ko xosee togg jëf à l'âge de dix-huit ans malaaka bi day wàcc ci moom fajar kii nekk ci ndijoram kii nekk ci fa la ñuy nekk nag ba timis jot bu timis jotee ñooñu dañuy dem yor seeni dossier téye ko dem jëbal ko yàlla ñeneen relever leen ñooñu leen di relever fa ñuy nekk ba fajar ñoom it dem ñeneen relever leen waaw benn nit rek ñaata milliards yi malaaka ñooy relever ci sa dund douze heures de temps yu nekk ñaar dinañ ñëw vingt quatre heures de temps yu ne quatre dinañ ñëw yonent bi nee na moo tax ñu bëgg a julli di julli julli suba ci waxtoom ndax boo jullee julli suba ci waxtoom malaaka bi fanaan ak yow da bind ne moom li mu mujj fekke waa ji def ko mooy dafa julli suba malaaka bii doog a ñëw da koy da koy bind ne bi may ñëw ci moom dama fekk muy julli xanaa am nga ñeenti julli ah, euh, ñaari julli te yow benn rek nga buñ demee ba timis booy dem booy julli malaaka bi day bind buy tëj dossier am ne maa ngi ko bàyyi muy julli julli googu da koy bind malaaka bii doog a ñëw day bind ne li ma njëkk a fekke mooy mu ngi julli léegi dañ la bindal ñaari suba ak ñaari timis loolu mbaaxu yàlla subhanahu wa waaye ko deful ci waxtu day fekk ñooñ dem hmm. moo tax mu ne wa indahu nekk na fa moom yàlla ci xam-xamam bu rëy boobu saxaaiful xalaiqi maanaam dossier wu jaam yi taqaarilul mazabiri ak rapport yi nga xam ne ni bik yi maanaam ñi bind moom lañu ñu bind almahibu te rek lu lool ndax luñ ca xas bind duñ ko effacé waat yàlla mu xam na moom yàlla mu màgg moom maa daq lu mu sew sew sew sew ci ay xam-xam xam na ko wa maa jàlla ak lu rëy tey boo jëloon ay rapport jox ko président rapport bi gudd lool dina am jotu lire ko yàlla nag lu rapport gudd gudd moo la ëpp temps ndax moo bind temps wa maa kutima ak luñ bind ci rapport bi an coulin loo xam ne malaaka yi sax jotuñu koo xam huwa raqibu moom moo koy superviser la ilaha illallah kii ku yebu jubóog moom gis nga malaaka yi bind sax bàyyi leen fi mais nga jubóog borom malaaka yi te muy borom bi subhanahu wa taala waaye naan damay ragal malaaka yi ndax ñu ngi may déglu déedéet am na lu gën ragalal borom malaaka yi ndax am na lu man ñoom mën nañoo bind ay rapport ba àggal bi maxfiratihi wa afihi mu jéggale ko moom te malaaka yi ko bind duñ ko yëg subhanahu subhanahu fa zaaka wasful qudrati maa ngi tudda màggu borom bi nag subhanahu wa taala ndax melokaanam la li rabbi ci borom bi wal malik mooy buur bi fal mujib mooy wuyu nga gis na fas bi yëpp kalimatu la ilaha illallah lay jàngale ñi ko téere bi itam di jàngale waaye saxiqu kooku nag kii am kàttan yu mel nii ma weesu moom moo yeyu li sana ci tagg walhamdi ak gërëm li wax fii ci melokaanam yi am baaxi di dafa reklu fal wujubu te moom moo war waaye kenn warula jaamu ay xërëm wala ngay dem ci ay njibar wala ngay wuti ay gàllaaj wala ngay wuti ay pexe mbaa ngay jiiñ xéewal keneen loolu boo ko defee rek weddi nga baat bi waaye saxiku boroom boobu moo yeyoo ak sukura euh, ngërëm wa tawxiida ak wéetal la shirka méttewul ñu koy bokkaa rek ñeneen ñooñu nga xam ne ay maaman lañuy lañ tudda te manuñu dara manuñu dara kat méritewul wal kufra ak di koy weddi fasa loolu ma ibu sikk la subhanahu tuna sellam basitu moom mooy tàllal loxoom lil bara ci mbindeef yi ala inaamihi ci di leen xéewal rek kaay leen ma xéewal leen kaay leen ma may leen foo ko mës a dégg hmm. kaay leen ma may leen gratuitement fi lahzihim ci ces bu nekk musibu mu leen koy jox rek subhaanahu tudna sellam qahaaru mooy borom kàttan gi nga xam ne nii bal li muy bari bari kàttan wa qaamiu moom mooy duma lil na ci tooñkat yi yow ma ko bés penc boobu nga xam ne max yi bu pertement subhaana man yëli tudd na xéewalu borom bi nga xam ne moo méngoo ala majaamii ci mboolem umuur yi mbiri mbiru ñëpp fa zima mu xamoo ne nos gi laa yëri bu du ko échappé de mm-hmm. moo tax arab bi dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nga ne euh, yawmal dafa am waaye yawmal qiyaamati kan mooy àtte jaam yi mu nekk ko allah yàlla mu nekk ko bi nafsi ci boppam moom ci boppam mooy atte mu ne ko waaw moom ci boppam mooy attel boppam arabi bi kaw kaw bi ree ba daanu ci suuf ah yonent bi ne ko looy ree mu nekk ko innal karima ida xaasaba qad afa mu ne ku tedd baax te am doole bu buy atte ku ñàkk doole dalay bal loolu moo ma reeloo nii ndax bu ñu dénkoon keneen rek problème am waaye comme mooy attel boppam alhamdulilah ree yan si bàyyi ba mu dem mu ne faqiha al yi waa ji dégg naa kii dégg na te dégg rek moom la jullit war def moo tax lahul mahamidu ñu ngi sant yàlla bi ma asda min al yi ci lim ñu may nag ci xéewal wa naama ak xéewal lanaa kasiibu mu fàggul ñu ko waaw damay laaj diine ju selle nii tawxid bu jube nii fan la am fu ci lislaam lahul mahamidu ñu ngi sant yàlla bi abdil anfusi ci limub noy yi ñi noy waadalil anami ak eh, inami ak eh, limub xéewal yi fal majlubu ak yim ñu fàggul yépp xëccal ñu ko ñu ngi ko koy sant moom yàlla lahu sanaa man de maa ngi koy tagg daa iman kaza rida maa ngi dégg ci moom itam fii maa ci loo xam ne dogal na ko alqadiru yi dogal ji laa taib laa taibu bu leen ko sikk de bu leen ko sikk mm-hmm. alhamdulillahi maa ngi sant yàlla di ka qawlil ajizi ci wax waxu waxu ku lott mm-hmm. li sukri ci cant gi maanaam maa ngi koy sant waaye yëg gu ma yëg ne lott naa ci cant gi maa uulee ci lim ñu jox ci ay xéewal yaa mujibu yow mi wuyu wa shukru lillahi ñu ngi sant yàlla bi xaq bi qadri xaq yi ci dëgg dayo cant ni mu waroon a toll benn waay dafa wax ne alhamdulillahi kama yanbaghi li da li wajhi wa azamati sultaani alhamdulillahi alhamdulillahi kama yanbaghi li wajhi wa azamati sultaani malaaka yëpp jaaxle dem ci borom bi ne ko dégg nga sa jàmm bi li mu wax yàlla na leen lan la wax te dégg na ko ko mu ne dafa wax ne maa ngi sant yàlla mm, cant gu tolloog mm, ni jëmmam màgge xanaa doontul benn yoon di ko gërëm ni nga xamee ne noonu la gërëm waree ci ñun loolu nag mënuñu koo bind comme ku wax alhamdulillah yàlla na leen bind leen ko nii mu ko waxee ngeen bàyyi ma ak moom ba yawmal qiyaamati ma fay ka ni ma toll man hmm. loolu nag lay wax ne ah, wa shukru lillahi bi qadri xaq yi ñu ngi sa gërëm yàlla lu tolloog moom ni mu toll wa wa wa idamil ifdali ak màgguk ay ngëneelam fal mawhubu ak yim maye wa shukru lillahi ñu ngi santaat yàlla bi addil matari ci kemu ndoxu taw yi min asama yi jóge asamaan kazaka fa suxubu ak niir yi niñ toll wa sukrulillahi ñu ngi gërëm yàlla bi xotril maa yi lu tolloog fepp ndox yi lala kiyaan yi ci existence bi alma fa su buubu wala niir yi nu ñu toll ñu ngi gërëmee yàlla lu toll noonu wax digg yàlla julit bu xoolee teraanga ji yàlla dikk ak jim ko jot a avance commerce sax léeg nga dem ne dinaa la jox marchandise bi mais da ngay avance nangam un pour bu dee moom nga avance avance bi doon ay milliare yi ci un pour cent bi mm-hmm. bés bu ñu la fayee lépp yow foo jëm jullit bi mu nee ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna un pour cent lañ ko jox un pour cent bi nag ci la teraanga yi nga gis yëpp ne yi mu yëg yi mu yëgul nenu nag li ci des bàyyil ba dugg a bàmmeel ñu jox la foofu deuxième pour cent bi walla trois pour cent yi li ci des boo duggee àjjana nag ñu jox la cent pour cent yëpp loolu wax digg yàlla gannaaw te yow daanaka boo xoolee sa bopp li nga wuuteeg ñu ñi gëmul baat boobu sa réewul de mm-hmm. sa réewul ndax di nga ndékki ñu ndékki di nga añ ñu añ ñu ngi yaa ngi reer ñu ngi reer yére boo sol sol nañ ko donte mën nañ laa gën a cher lañ sol waaye yaa ngi sol ñu ngi sol yaa ngi dëkk barab ñu ngi dëkk barab kon teraanga am na te ëllëg ñu nar laa fay loo xam ne moom ay duma lañ koy fay fay jullit moo tax bu jàmbatee rek xamul boromam mm-hmm. ñu ñaan yàlla mu xamal ñu boppam gëmal ñu ko bi max di fadli wa juul yi jéggal ñu rëcc rëcc yi wassalaamu aleykum wa